mel ni bésub Serigne Touba bile ku nek day faral di fessel yéeneem ci barab ba mu faré ñii di yëngu ci walu ngeur gu yaram kenn demul euh, ñu des. fi leen lay indi ñu def les premiers soins si ça nécessite un traitement symptomatique ñu def ko si ça nécessite une évacuation aussi on a les ambulances euh, yu fi nek donc nous avons l'hôpital hôpital Fawze ni l'hôpital hôpital euh, Khadim quand même ñi ñëw ci depuis ce matin on a reçu plus d'une euh, cinquantaine de patients et alors que il est 15h et quelques té ñaari box la fille góor ñi fële ni.

fi ñu toll donc euh, fagaru takk masque yore gel aussi di moytu bu baax. tamit euh, loo yëg sa yaram ñëw kër docteur fii ñoo ngi ci jumaa ji am na tamit ñeneen ñu wër ñu nekk ci jumaa ji am na hôpital tamit euh, tamit ñu fa nekk ñoo xam te disponible lan donc kenn ku nekk màggal si ta bañ am benn jàngoro wala benn jafe-jafe boo xamante moom nga fi jëlee wala moom nga fi indi te du saafara incha allah. ngir ci kuréel gile di muxaddimatul khidma di ñëwaat ci seen taxaway ak ndimbal yi ñu faral di jaglel askan wi am ñoo xam tax dañuy defe nek xew-xew bi xew ci jamono motax ñu taxawal li fekk jiitu nako waye ci fagu dayer khidma mo andi lepp ñu liko ko ba ñu taxawal ko te ñu fekk fi bar bi ko tax jox jóg dañoo dem ba gis ne jumaa ji ni mu toll léeg-léeg moo am lo xam nit bu ko fa dara dara ci sansé man na am fuñ ko duggal defal ko premier mën a ak mom yër sans après ñu yobbu ko ci yu magi motax barab bi ko xam wala bi si mag yi fi ni daan won boko ko sax do xam foo koy teg waaye nag boo duggee fii te ko ba mu doon bu sedd ni bu ko tangaru japp wala mu xam wala dara boko fi dugalee mu fekk fi ño xam dañ ko xolal premier am bu doone ko mën a dem sans da dem sans bu ko xam ne day laaj tan dara ambulance ngi ko da gannaaw mu melni amna ay way defal yalla yu ci faral di dugal seen loxo. trip bi di ndey dana ci japp ñaneen ñi nga xamne ay bon warante nga xam ñoo na liggey bi di liggey liggey bu rafet ci liggey bi ñi koy coordonné docteur Abdoulahad fay docteur alegui docteur Thiombane pharmacie nga xamne mo moo lëkkal mboolem pharmacien garab yo fi gis ñu toll mbokki talib yi ginnaaw bu district bi andi li mu indi talib yi kenn ko ci nak pharmacie ba ngay liggey da ngay fop garab fekk ñu ñoo liggey euh, liste bi nga xamne ne moom xam garab yi fi soxla ak pharmacien yi dañuy jël day kenn fi addi ni ma barkeelu li ci liggéey bi ñun d'ailleurs bi ñu suñu suñuy cotisation ñu ñu ci màggal gi jënd ci garab dolli ko buñ ko doon jël ko rek ci lañ def ku fi ñëw ko nekk ñu faj la kon a xam ne dañuy faj ñaari fan njëkk màggal gi ndax jumaa jox Tuubaa kon a xam ne mooy njëkkee gan mooy mujjee tax barab bi fi ñu toll boo seetee li wër penc fi faj toll ci fi te xam gisoo fi tey li fi ñëw ci personne ci yoo xam ne ci biir jumaa ji la kon bo amutul foo leen jëmee day am jafé jafé lo tax ñu xalaat ne juma ji tun nii war naa am foo xam ku fi dara dal lu neew neew premier yi mëna ñu ko defal après ñu lay évacuer ci